asalaamaaleykum mbokki internet Dontel TV maa ngi leen di siyaar bu baax a baax kenn ku ci nekk fekk naa la fa nga toog ne la asalaamaaleykum di la ñaan boo ko jotee na ko jotali sa morom jàpp ni saa su nekk mbégte lay doonaat ñu ñëw ci seen émission bi nga xamante ne mooy Dental Actu saa su nekk mu nekk mbégte tey ñu ñëw fii ci Pikine na ah, Gunaas fekk si kilifa fekk si koo xamante ni boroom xam-xam la nitu diine ni koo xamante ni macha allah ëmbul baax macha allah démb ba tey bi ma ko posté ne moom laay invité jotuma ci moom lu dul ay seede yu rafet. muy nit ku baax nekk nit koo xamanteni social la di dimbal nit ñi te yàlla tax ci xam-xamam macha allah ñu koy wax sëriñ Mor Heyman mu nekk nit koo xamante ni macha allah nit ku baax nit koo xamante ni ah euh, tubaari fa kàlla macha allah man li ma xam ci moom rek hmm, en dehors de ñaan ak euh, dimbal nit te yàlla tax mais également dafa nekk sama papa nekk sama xarit tey nag moom dañuy dalal fii ci Gunaas di ko bàyyi mu nuyoo sëriñ Mor Kéemaan maa ngi lay siyaar bu baax a baax gi. waaw auzu billahi mina shaytaani rajim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 الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه سيدنا والي والي واحد بكل حاجة في سليم البشرية حاد الحوم والتهن بجاء الدرى في الأرض والسماء وما بينهما ودر كل ما خلقه وما تحمل في عبد محمد الله خير سمد وباهي سبحانه ذو وواهي ونحن في كنف منيه من كل سر وأساسني na مستمتعين بحياة أحمد خير الأنعام ومفتحا مبتدا من أنا في سمن باين أمن الله من البلاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di fay nuyoo bu baax di leen ñaanal bu baax tawfiq tay si saxaadatu daare ni waaye di siyaare bu baax xalifatul am sëriñ Muntaxal Basiir sunu borom yàggal ko fi lool te wér ba naa li nga xam ne am na ko bëgg ko liggéeyal maam di baax ja Seexul mu defee ko ni ko bëgg waye diko ñaanal khalifa généraux yi nek ci réew yi yëpp diko ñaanal wa jàngu bi diko ñaanal ñëpp diko ñaanal son excellence président de la république basirou jahar fay kon ak ministre am ak ñëpp ñi nga xamni ni ñoo nekk ci réew waye di ñaan ci réew mi jamm waye di leen ñaanal tawfiq taysir saxaandatu daare ni di leen wax alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa site bu mag di Dental TV ñoo ngi leen di siar baax di leen jox seen wàccuwaay fii ci de Gounass ak Baye Fall bi Serigne Mor Kémane le Baye Fall de sa génération bismillah le Baye Fall de sa génération comme ni nga koy waxee saa su nekk nga nekk Serigne Tarayax waaye également nekk koo xamante ne mën nañu fi nga dëkk ràññee nañ la fi lool ñu bëggoon xam kan mooy Serigne Mor waaw nah, jërëjëf maa ngi lay baax yow sama doom nga sama xarit nga ndax maag sa bàyyi mbusoo bi lenn la dëgg la waaye bi nga jëlee initiative bu baax bi di danga may seet si boo gisee waxtaan wi amu ci mhm. danga ma ko demandé rek ma accepté billaay dëgg la ndax li ko waral mooy dangaa bokk ci man dëgg la jamono toll na ci man foo xamante du ku ma micro ma wax dëgg la ndax li waral loolu mooy wax dafa jooy mhm. ñu ni ko lu nga jooy mu dan maa waxee fu mu warta waxee mhm. dan maa wax te waruñu maa wax kon lenn lu ci nekk rek yow cër boobu am nga ko ci man mooy maanaam war maa laaj ma tontu. te am nga ci man accès yow fekk moom ma fatu. Mhm. nga fëgg ba ubbi la. waaye nag ñoo ngi siyaare bu baax ñu ngi àndal ñëpp. Mhm. sa directeur général. ma mhm. ci ki ci suuf. ñoo ngi ñaan bu baax a baax site bi sama borom def ko télé international. bi jaaxi Mustafa alayhi salaam. barke alquraan karim fii télé yu mag yi nekk ci réew mi toll. yàlla na fa yegg. amiin yaa rabbi barke alquraan karim. loolu dina xaw a dina xaw a jafe nag. waaye dina yombi ngir ñu waxtaane kan mooy Serigne Mor Uh, moy batu serigne karia ah. mhm. dedet man je ne suis pas un tradi praticien je suis un chef religieux or que kan nak liguey bi ni mu demé ya. li nuru nuru lu dara te du dara dafa bari mhm. manam tay ji mbiru ñaan yalla ak mbiru manam serigne tariya ah. dafa ils sont diamétralement opposés beaucoup mhm. parce que ki ñaan yalla la kee mbiru mbiru sacrifice lay def. Mhm. mbiru sacrifice nag dañuy dégg ñu naan la neex yàlla neexul yàlla. Mhm. waaye mbiru ñaan yàlla day tàmbalee kun jeexale fa yàqul. Mhm. day sob sans borom. Serigne Mor Kéemaan nag ndaw la loo xamante ni ndaw yi bëgg na ko. jox ko bopp ndax bi nu jugee ci daara ji tabbi si ndakaaru ba tey fi nu nekkoon mooy sunu baas bi nu wàccee fii Pikine Gunaas la wàcc. ba tey jii nii fi la nekk ba yàlla may na ci sunu ndakaaru bopp. kon loolu moom mooy. alxuraan daf ni xaalal wootallahi ataamiruuna naasa bil birri hmm. kuy digle war ngaa njëkke sa bopp doog a wax te lu baax rek lañ bëgg te moom la ñuy tu te fa la ñuy teg suñu tànk fi la ñuy xiirtal nit ñi nga xam ne dañuy ñëw ci man hmm. Serigne Mor Kémane daal benn jeune la boo xamante ni bu nekk ci réewam hmm. bëgg réewam am suñu borom lu mu def suñu jëmm bi ñu bokk ko waa réew bi ak waa bitim waaw macha allah Serigne Mor Kémane comme ni ko waxee mu nekk loo xamante ni lu ñu xaw a euh, jaaxal la ci réew mi muy sëriñ si ku jug rek ne sëriñ laa ku jug rek ne damay ñaanlu nga gis ñoo xamante ni amaana dañuy jug di dem def seen xaalis ci sëriñ te amaana duñ ci gis euh, résultat bu positif mais loolu pour man lan moo ko war a waral euh, ba pare bëgg naa xam itam lan mooy njëriñu sëriñ ak aussi lan mooy faj ndax nit ki boo koy faj da nga ko war a faj ci ci rawxaanam wala danga nga koo war a seetal wala danga nga koo war a xam moom mooy kan ba pare nga soog koo ñaanal. waaw soxna si xam nga mbirum ñaan yàlla nag ne nii li naan dafa tumuranke mhm. waaw dafa tumuranke dëgg la ndax wax nga ko ci biir wax euh, ku jël alalam def ko ci mbiru ñaan yàlla te gisul fi résultat. Mhm. mooy maanaam kuy dugg ci bunt kër da ngay jaar ci bunt mhm. nit ki munoo koo ñaanal te xooluloo ay mbiram. li ciy jiitu ba njëkk ci mooy mhm. faaw mu jox la turam mhm. ak santam ak turu waajuram bu jigéen ak sant waajuram bu jigéen ak mhm. ñaata la am ñaata at la am nga mën a càmbar ay mbiram di nga adab xam moom turam maanaam ñaata siifur la jàpp xam rawxaan wan moo nekk ci moom xam tabixaan ba moo nekk ci moom xaw biddi moom lan la pour nga mën a percer mën a dugg ci ay mbiram mbiru ñaan yàlla nag yombul borom may nag du weddi may tey jii man mënu ma yàlla ya daf maa may ci ñaan ya yàlla ma hmm. bëgg koo gàntal keneen dëgg déedéet borom yi may du weddi may hmm. suñ borom maye na lu ne hmm. suñ borom maye na lu ne te doomu aadama bi nga xamante ni suñ borom ab nammee la nekk ci moom loolu ab jaam lott na ci gàntal ko wala ab jaam lott na ci maanaam yàqu ndax mbiru ñaan yàlla moom fi mu ne nii réew mi yaakaar naa ñi ko ciy def néew na ñaan yàlla laa Mm-hmm. ndax yàlla suñu borom moo ne ñaan leen ma may leen ngeen sant nga dolli mm-hmm. ñaan yàlla la ñi koy def ci réew mi mm-hmm. maanaam néew na dëgg la ndax koo ci ñëw ci moom boo ñëwoon tey sëñ moo kéemaan lim lay njëkk a xamal mooy jëmmam jëmmam la lay won te fekk or ka mbirum ñaan yàlla lépp sans borom da ngay def la nga man la nga mënoon nga bàyyi yàlla mu teelewul dara dëgg la waaye yàlla maye na daal ndeysaan yàlla maye na lépp ah, waaye allah yow moom man gëm naa ne suñu borom may na la ndax lekkete kese naxuti béy te saa su nekk yaa ngi koy wane ci sa jëf ci sa social ci jàppale bi nga jàppale doomu aadama yi mu nekk loo xamante ni ah, ah dafa jiitu suñu nopp comme sànq ni ko waxee rek également mu nekk loo xamante ni koo ne Sëriñ Mor rek lim lay njëkk a wax mooy sociale bi mu nekkee secret boobu nga xamante ni en dehors de ñaan nga koy jàppalee ci doomu aadama yi. xam nga xam nga boo ñëwee ci bible suñ mbokku chrétien da ngay dégg ñu naan la bible bi wax na ni aimez bu Dieu vous hmm. maanaam gis nga biir doomu aadama yàlla suñu borom lu mu bind doomu aadama da ciy gën a fonk gis nga nit ki mënoo loo yàlla te fu ko jaamal hmm. jaamu yàlla dëgg-dëgg sax ci biir jaamu yàlla yi la nekk gis nga nit ki il faut ngay mën a dimbalee ku soxla ndimbal faaw ñu lay dimbali hmm. waaye kuy dimbalee faaw ngay continuer di dimbalee gis nga nikki ki la nga joxe rek moom nga am nit du joxe lu amul te joxe haddiyat yi fusti bi saar radin kama tuxoo bilal kinal karim min ha bilal min jaadikil mustabraki daf lay dimbali ci lu bëree bëri te nit ki nag boo nekkee moom njariñ doomu aadama njariñ mm-hmm. nit njariñ mm-hmm. kon su fekkee nit ki dafay ñëw ndax ñaar doo ngay ñëw sama kër ki fiy indi ak ki fiy jël si sama kër gi ñaar doo nga fiy ñëw mm-hmm. ki fiy indi ak ki fiy jël ki fiy jël bu ñëwee fekk bi lim fi fi laaj bu fi nekkee danañ ko ko jox. Hmm. bu fekkee nag dafa ki nga xamante ni maanaam mooy indi kii jël si jiitu na ko hmm. dana xaar. ndeysaan ba kii indi ñëw mu ñëwee ñëw jox ko mu dem. macha allah loolu donc yaakaar dong la nit ñi di am ci waaye du dañ leen a gën day du dañ leen a gën bàyyi du dañ na a gën judd. Hmm. waaye nit ki mooy am yaakaar ñëw ci yow loolu nag du sama njàmbaar ñoom ñi ñëw fii di sàkku ndimbal wala di sàkku si aajo du seen jaaku si dogalub sama borom. ndeysaan def la ma man la ma mënul ma suñu borom la moo taxit yaa ngi ciy bay sawaar ci ni nga ko mënee mm. waaye ñu gis tey ba tey euh, fi tolluwaayu réew mi toll. Mm. ñu gis euh, dëkk bi fu mu toll nii jax na lool élection yaa ngi nii jub si ah élection député ñu gis opposition beeg parti au euh,

manam pour man ñom ñëpp ci lool ci lool lañ wara dox donc mu nekk lo xamanteni ni euh, bi jaxna ken xamul fan ngay fété ñu bëggoon nga indi ci tuuti ay léral ci li nga xamanteni ni xollu euh, way dekk bi mm, alhamdullah lool nak euh, ñoo ngi sant yàlla bu baaxa baax di nuyu bu baaxa baax khalifa mm-hmm. zinro yi fi nekk ndax ñaan mom amna solo waye gis nga li ñu jëm muy élection yi fay am mbir yu ci xew sa yu nekk bu ñëwé waxon naa ko fii ci jamono yële passé ni maanaam mbir bu tollee fii kenn ku ci nekk na nga waajal sa njaboot kenn ku ci nekk na nga waajal sa bopp ndax fi mu ne nii am na rawxaan yoo xamante ni ñoo ngi ci biir réew mi te ñi leen fi indi mooy ñiy xëccoo rawxaan yoo xamante ni mën naa ni ay mauvais esprit la parce que nit ki nga xamante ni dafay yëngu ci wàllu xërëm wala muy yëngu ci wàllu njibar saa yu nekk buy jug rek ak li muy jugaale léegi ku ci woyof bopp rek maanaam doo ko fekk. ndax kenn ku ci nekk bu jógee dafay ànd ak ay xuddaam. Mm-hmm. day ànd ak rawxaan yoo xamante ni rawxaan yooyu ci jëmmi boppam. Mm-hmm. moom lay mooy doon seeni accompagnant. léegi looloo waral bu njëkk bu nit musaana def sopp da ngay gis ni dan naan la mu ngi en coma wala mu ngay nelaw lu mat 6 jours wala 7 jours. Mm-hmm. léegi loolu du am da ngay gis nit koo xamante ni day def sopp sur la sang bu tam génne rek. da gis ni si saa si day faatu. Mhm. parce que li ko waral mooy rawxaan yu bon yi nga xam ne ñoo tàbbi ci si réew mi danoo soxla maanaam li nga xam ne mooy sacrifice maanaam sàngeen muy wàllu deret. Mhm. moo waral kenn ku ci nekk ci ñun nit du jug xëy dem noonu wax naa ko ci benn émission. Mhm. dama ni leen nit da waajal sa bopp. jullit dëgg ngànnaayam mooy ñaan yàlla. dëgg la ñan yàlla nag fa nekkoon ba tey mu fi. ci biir alquranul karim bii dara jeexu fa ci biir sunu gàncax gii li ci wàcc lépp luy kaaraange lépp loo xamante ni luy protection la mu ngi ci biir mhm. léegi nag ñoom ñi nga xam ne dañoo nekk ci réew mi waaw baax na kay ba xam li ñuy wut jàmm la jàmm la mhm. ndax ñen kenn ku ci nekk li la tax a jug mooy defal sam réew mhm. loolu nga nu présenté waaye est-ce que loolu moo nekk parce que ku nekk au pouvoir nekkoon nga opposant léegi lan moo waral loolu mooy kenn ku ci nekk da maanaam jeex wala da ngay fàkk jëmali ci sa bopp mm-hmm. waaye li ngay fàkk jëmali ci sa bopp ngir est sa bopp la wala ngir askan wi mm-hmm. waaye bu fekkee ngir askan wi loolu diine dana ko nangu mm-hmm. waaye bu fekkee ngir sa bopp la te fii koo gis mu toog bala moo jekkal kenn daa jekkal bopp allah akbar muy au pouvoir muy au opposant léegi nag ñun ñi nga xamante ni ñooy jug di ànd ak ñoom nekk seen accompagnant nañuy aar sunu bopp ndax ñoom ci biir ñi ñuy àndal amul kenn ku ci jugeeg loxo neen kenn ku ci war a jug génn jug génne noonu amul ci ñoom ñëpp muy ki nekk pouvoir wala mu nekk opposant mhm. ndax xam nañ la nous sommes des africains te am nañ suñu mbir yoo xamante ni suñu mbiri bopp la mhm. kon wàccuwaay mën ta ñàkk ci képp kuy wuti ndaw mhm. léegi nag ci biir bi ngay wut si nit ki li ngay wutee dalay jaral am na ñoo xam ne tey ji dañ naan la nguur de jaraluma lu ñaaw nguur de jaraluma sama diine am na ñoo xam ne dañ naan ma kat lépp loo xamante ni yoonu nguur may na ma ko sama fit may na ko sama gëm-gëm may na ma mhm. kon yaay xool li la jariñ ak li lay lor mhm. waaye nag biir wuti maanaam sam réew jéem a jagal sam réew jéem a defar sam réew loolu moom diine ba ne mhm. waaye nag la nekk ci ginnaaw ñun moom lañ mën a xam waaye liñ ci mën a xamale daal mu jëm ci wàllu maanaam wàllu kaaraange yoon moom ak élection bu tollee fii ak réew mi bu tollee fii ak at mi bu tollee fii ci ñu nawet ba pare ndox mi bari boo xoolee Sénégal gépp dañoo sibbul. Mhm. koo wax mu la damaa grippe. Mhm. koo wax mu la damaa sibbul. Mhm. ndox mu ndox mu bari mi nga xam ne moo mujjee nawet bi ndox mi ci fan yi ñu mujj ci ginnaaw dafa bari lool. kon faaw yenn yi di am mag ñi dañ daa ba ci ñun la saafara si saafara nawet la. wala fas gi façon nawet la. waaye loolu amatul nawet bu musaana ñëw. da nga naa gis fas yoo xam ne da koy takkal seen doom ci loxo ñu takkal la ko ci tànk wala ñu jël saafara ni saafara si nawet la mm-hmm. loolu tey ji mu ngi mel ni prévention mieux que guérir mm-hmm. mooy les vaccins mm-hmm. da gis nit koo xam ne nawet bu ñëwee dan naan la yooyu kat nanga mag na da ngay gis dañuy vacciné wu pour prévention contre les maladies loolu nag ni mu amee noonu ci zaahir noonu la amee ci baat baatin ci baat yi nawet bi bu tollee fenn fi dan naan nit ki kat lii pour wàccaayu nawet la am na yoo xam ne dan naan la dan koy def ndax ngir ndox suuf yi nga xam ni ñooy nekk ci kër gi alentour de la maison nga xam ne dangay am saafara soo xam dañ koy liggéey wërale ko ñu naan la lu mel ni xeetu jiit xeetu jaan xeet yooyu noonu nga xam ne day dox si dana la muccal ba doon tàbbasi ci kër gi loolee nag li nit ñi bàyyi nit ki boo bàyyee saw yoon yoon woo jaar aw ñal te aw ñaal ku fi jaar fii fan la ngay mujj. <laughs> macha allah waxtaan bi defe naa ne mi ngi bëgg a neex. ak bisimilah ndax ndax <laughs> ndax man yii may dégg ni wax dëgg fa neex yàlla moom. dëgg moom du romb nopp. Mm. mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla foofu la réew mi toll. Mm. ndax ku nekk ci bu gudd bi rek yaa ngi ci bu gàtt bi. Mm, loolu la yàlla dogal. donc nag di ñaan yàlla rek yàlla dolli fi jàmm yàlla dolli fi sutura képp koo xamante daal yaa ngi yuutu. lepp lu gën ci yow suñu borom yalla nako def ya mu nek lo xamanteni ndam bu sedd guuy la ci ñun ya sank sax maa ngi jot ben information ñu jox ben fausse information sax lay wax mm. ñuy ray suñu mam jooju nga xamanteni moy monsieur le ex président abdoulay wad da mm. fekk yo xam nga Sénégal dafa metti la <laughs> nga jek jek rek ñu lay jox information da fekk sax amul suñu mam bobu ñu ngi ziar baax eh, baax di ñaan yalla mu guddu fan lool inshallah rabbi mm. waye ba rek sëriñ bi ñu nek ci li nga xamanteni moy waxtaan bi ah Dental ci ñew sees la tay ak mm. euh, Dental TV mm. ñu fas yéene waxtaan ci li nga xamante ni mooy sa wàllum liggéey mm. sa wàllum liggéey yan jafe-jafe nga ci jànkonteel ci nit ñi waaw liggéey bi nag wax dëgg fa yàlla ñu ngi ci am jafe-jafe ñu maanaam sécurité yenn saa yi dañ ko ci am ndax ci démb rek moo ci mujj moo ngi sama téléphone boo paree naa la ko woon koo xam ne bi ñu ko fii indi maanaam li nekk ci moom dafa yeewu muy wàllu rab mm-hmm. rab nag mënta ñàkk ci doomu aadama mhm. maanaam daf lay jariñ wala mu lay lor waaye koo gis muy dox rek ànd na ak ay rawxaan mhm. rawxaan yi nag yenn saa yi dañuy ko bi nga xamante ni loolu am na xaw na maa sonal waaw parce que dafa mel ni koy jàppanteek man yooyu dama ciy dund yu métti yenn saa yi sama bunt bii am na koo xam ne dàjj na ko fi ah, sama bagage yi tamit am na koo xam ne tamit toj na fi samay kaas maanaam mhm. yenn saay yi damay am jafe-jafe pour maîtriser leen waaye yàlla suñu boroom dimbali nañu ba maanaam nit ki lu mu yëngu man ngaa tawat wala dara dugg la ñu lëng la indi la waaye boo ñibbee yaay doxal sa bopp macha allah loolu moom suñu borom dimbali nañu ci mhm. te yow am na ñoo xam ni xam nga leen ñoo mhm. xam ni jaar naa ak ñoom foo xamante ni lu jëm ci wàllu rab la ah, wàllu rab nag suñu borom daf nu cee dimbali ndax sunu maam daf daan faj mbiru rawxaan mhm. muy wàllu àndandoo mhm. ndax Moustapha Gambo ku ne xam na ni dafa feesoon dell waaye ku ne xam na ni Matar Touré Fall sunu maam it dafa feesoon dell ci wàllu woowu diggante kër ngaan ak ngëlig ak cilmaxa ak mbaakol lañ dëkk xolu kajoor mhm. kon yàlla bu dogalee nit ñi di ñëw ci ñun yenn saa nag nag ngeen indil koo xam ne gënoon a sonal loolu mhm. yenn saa yi nga gis koo xamante ni mbir da koy yegg si foo xamante ni su ñëwee dalay song mhm. bu fekkee ni soxna si nga nekkal amul sago tuuti rek maanaam xolam dana yëngu mhm. ndax dangay gis ni nim lay songe noonu nga koy téye pour man koo dal bam nelaw wala nga jël cuuraay suur ko ba mu tëdd nelaw bu yeewoo nga mën a continuer sa liggéey waaye yenn saa yi li fi indi nit koo xam ne muy góor di jigéen buñ ñëwee fii dañ may sonal wax dëgg fa yàlla ndax buñ ñëwee am na mbir yoo xam ne buñ ko tàmbalee faaw li leen dugg wax mm-hmm. su leen suñuy wax nag ci biir loolu danan manifesté woo mm-hmm. ndax nit koo xam ne dafa dugg uh, dafa am lu ko dugg muy mm-hmm. mbiru rawxaan am na nu muy ñëwee ci yaw yoo xam ne dangay ngay jàpp ni uh, réewande la wala nga japp ni manam tayef la te fekk du non mhm. lim andal ci bopam il faut nga am sago yow nga am maîtrise man ko meuna taxaw bam genn ci lolu mhm. waye liggéey mom wax deug ci yalla dañ ci jankon del ay mbir yu métti yeen sa ñu duggal lu ci ay kuy yu saf bo <laughs> waral fi ne damaa yokk ak xir goo xamni sax bo bëggee sama xir gi lay génn waaw <laughs> macha allah moom kay gis na fi xir rek fete rek lepp man gis na ko fi ndax man fi mom ci danaka sama kër la <laughs> da comme li ngay wax rek dañ la dañ la xam donc xam la motax ñu bëgg la dicte dégtal sénégalais ndax lu baax des koy euh te comme li nga koy waxé sénégal yàqu na bo xamanteni ñi mën-mën la dañoo bari te mënuñu kon nak bis bo xolé ko xamanteni ni dafa mën yoon la nga dektal ko sénégalais ngir sé aajo faju macha allah ñu gis ni wax li ma la mëna wax dal ci uh-huh. lenn lu leer moy sa borom dimbali na uh-huh. ci ñaan yàlla macha allah képp koo xamante ni ñaan yalla rek ñor na la uh-huh. dana la ko defal ndax la cey jitu moy doo ma woo rek wax ma sa aajo li ci njëkk mooy dama naan la yónnee ma saw tur ak sa sant ak sa tur waajur wu jigéen ak santam ak ñaata am la nga doon déglu mm-hmm. lépp lu nekk ci yow danaa la ko wax lépp luy sa dund danaa la ko wax lépp luy sa aajo danaa la ko wax mm-hmm. bu mu ca yeggee nag ci jëf lun man danañ jëf lun mënut danañ bàyyi yàlla ñi nga xam ne te luy waaye tawat ak aajo moom kenn du ko dugal sama kër gi du ko génn allah taala ci kàttanu yàlla sëriñ moor lañ ngay am foofu <laughs> man nga sëriñ moor ngay am foofu la jantal maara la jantal maara macha allah mu nekk loo xamante ne euh, tey nag dama bëgg ñu dugg ci waxtaan boo xamante parce que nag euh, papa xam naa la de xam naa say mbir de dama dama bëgg nga génne affaire yi euh, ah maanaam ñu wan gaay yi mënul que ni ñoom mënuñu yow yaa mën nit nag ci li nga mën da nga wara wane nak ndax man ak yow xamanté nañu waaw man lima xam ci yow eh, xeyna la ñoñu di gis yow bay ka dal ah lool mak maram eh, ci mbirum suñu borom la gis nga gis nga kini kini ma tek <laughs> eh, kini <laughs> amul nit ko xamanteni mm-hmm. diñ fi ñew mm-hmm. am lu nekk saw yaram mm-hmm. mbuski du ko genn wala kon ndaysan ñi may seetaan ñëpp xam na lool man xam naa fii ba bitim réew. Mhm. nit dina ñëw bu ma téyee mbuus mi lépp lu nekk ci yow ci lu bon. Mhm. ci ngelaw saytaane. Mhm. ci njibar. ci lépp loo xam ne loolu lekkoon la muy lu bon. dama koy génne ci saa si jeex ren koy génne. da koy wàcc wala nga dem ko toile. amul midi à 14 soo ñëwee ci saasi si mbuus yi su ma ko téyee def ci li ma dama lay jox mbuus yow nga téye wala ma jox la bool nga téye. lépp lu nekkoon ci yow te bokkut ci yow da nga koy génn. Mhm. yàlla. ndeysaan loolu for na. te yàlla dimbali nañu lenn. mooy cuuraay njëfaan gi ñu yor mooy dof ba du ko wax. dof ba du ko wax. ku nekkul kan fóori mhm. doo xam composant sëriñ su bari man na laa wax jox lay sunguf xay ak fuuf ak nangam mais koo ci waxoon limal ma dof ba du ko wax mu tàmbalee ko la ko tàmbalee ca fuuf ba fa mu yegg. Ah. duñ ko ci yeggal ñoom. Ah. li jëm ci wàllu xaatim tamit. yàlla dimbali noonu ñu bari dañuy ñëw rek amaatara ñëw fekk xaatim bi ni mu tege rek ñu bindee ko noonu. Mhm. waaye dafa am nu muy sole xaatim dafa am buntu boo xamante ni mooy benn ba juróom-ñeent am na buntu boo xam ne mooy benn ba fukk juróom benn muy seize. ñu bari mënu ñoo maîtriser démb rek am na ko ma ci waxtaanal koo xam ne sama wajur la. Mhm. moo yor sama wajuru jigéen. Ah. ñuy waxtaan ci wàllu xaatim. ma ne ko ñu bari Sénégal tey jii man na ne lasraar la ñuy def waaye pour ñu maîtriser li jëm ci wàllu xaatim lu jafe la. dëgg la fekk maanaam secret recopier ko noonu ñu defal la day bi ci suuf nga recopier ko jox ko doomu aadama déedéet dafa am lenn lu ci nekk dafa am buntu dafa am jaareen. Mhm. boo bëggee tàbbi si ndakaaru buntu ndakaaru ngay jaar boo bëggee dem géejawaay buntu géejawaay ngay jaar. waaye bu fekkee da ngaa bëgg a dem géejawaay jaar buntu caaroy doo yegg macha allah mu nek lu am solo ñu bëgg a euh émission bi li nga xamanteni ni sëriñ yi nga xamanteni dañuy naxaté mm-hmm. di nappe di def ko yi ngay def ni di tanggal ay ay café ak di togg ataaya ak lu nek manam ci koy def <laughs> ndax fi mo lu nek am na fi di nappe yow nak secret yi nga yor <coughs> ah wa xeyna sax du ci émission mm-hmm. mu nek lo xamanteni ni ah dañ koy bëgg di gis ci ay nit yo xamanteni dañoo xam exactement ci lañuy def waaye sëriñ Mor Kéemaan ah sëñ bi lii ma lay woon sëñ bi noonu dama lay woon pour nga xam gis nga ah gaa yi toog ah ilaha illallah dañuy toog ma ni leen xam-xam du toog rek di wax wallahi lu mu ci doon gis nga lii boo xoolee leen lépp lu ci jëm ci xaajoy doomu aadama la ndeysaan da ngay ñëw wax ma ah ma rempli jox la ah lii moom il faut ma indi ci sama sama sama ñaari xarit. maanaam ñaar laa suñu waagaan ak ci sëriñ bi mooy dama lay wax dama naan la ñaar laay toog ni la nangam nga ni waaw man la gis nga papa lii yëpp yow yaa ko bind. macha allah fi mu manam nii maanaam boo xoolee da ngay gis ni maanaam yaasin la boo xamante ni dañ koo tabat yada abila abil wa taba ahna. suutul yaasin ba kullu shay'in ilayhi turjaun moom lan ak tabat nga xamni lepp luy galankor lepp luy yak yak lu nek ci yow soko jëfëndiko mu and ak composant yi mo war andal manam maanaam ngay tiit mbiru yak yak ci saw yaram li ah, moom doona war di te alquran du leer la jo xamanteni du jar nga koy laccel kenn gis nga ba kulli shay'in ilayhi turja'un mo nek non la ilaha illallah mo nek allahu akbar serigne ci jàngi xam leen seen i mbir lépp lu ci mën di doon. lii lan la damay taxaw ni la maanaam wàllu lasaraar du ma ci toog di wax. déedéet. dama lay woon kii fi mu ne nii boo xoolee gis nga ko daanaka da ngay xool ni alam nasara la. alam nasara fois. ndeysaan. lii nit doo ko jox mu ànd ak la mu war a àndal du faj. te lépp dafa am ci lu mu war a àndal. lépp dafa am composant yu mu war surtout loolu na nga maîtriser ko xam ko way li doy na waar de señ wagan li doy na waar de sha allah la ilaha illallah alam nasara la ha alam nasara lak sabraka wa dafna anka wisaka allazi ana dasara wa rafana lak sikarka fa inna ma'al husri yusran inna ma'al husri yusran fa ah. iza farahta fansab wa ila rabbika fanhar dégg loolu soixante dix fois. soixante dix fois nga ko bindee nii. soixante dix fois moo nekk nii ñu tëj. Hmm? lépp lu ci doon lii lépp valise bii ngay gis lépp ba ci fatixatul kitaab yu ànd ak yakaadul lazina kafara nga gis ni yaasin ba kullu seen yaasin bii dangay gis ni dañoo ubbi maanaam miim bi nga xam ni juróom-ñaari mubit yi ci nekk. Hmm. def ci xaatimu Suleymaan mooy nii. laa ilaaha illallaah. juróom ñaari mo nek ya ci suratul yasin bu ci nek dañ ko ubbi manam def ci xaatimu suleymaan nga xamni ni daf lay yokk ba pare daf lay ubbi ci yalla len lu ci nek lam wara andal mo ci bi ma sha allah lepp exclusif la kon sun borom fi lay xamé ci ah. lolu li nga xamni mo jëm ci walu manam galaj doonut lo xamni lu ni waxantu la wala lu ni jëfantu walu ci man di doon da ngay toog liggéeyal lako ma sha allah jox la ni la demal amna na bo xamanteni kuy ñëw fii ci Serigne Mor Kéemaan xam nga ko muy bërëbu sangokaay ah waaw boo ñëwee bu fekkee situation yi nga nekk maanaam xool nañ ni waroo yóbbu gàllaaj sa kër mhm. ngir yi lay yàqal mhm. liñ lay defal dan la koy defal sa saa si ubbil la néeg bi nga dugg fa sangu lépp lu nekkoon sa yaram day day macha allah ci kàttanu yàlla lii moom werante xuuxaan tekki tubay macha allah lii moom defe naa ne ñun kese ñun ñoo ko fi am dental tv rek moom moo am lii exclusivité ci Serigne Mor. Uh-huh. macha allah fii wàcc na ba zéro. lii defe naa ne werante xuuxaan tekki tubay te lu ne lu ne fang kenn du ko jeex. Mm-hmm. waa papa dañoo bëggoon xam nag lan nga xam ci combat royal bi Modou Lo ak Siteu. waaw combat boobu nag. waaw. am lu ma ci gis lu doy waar. ah. mooy yuuxu dana jib. déglu leen. yuuxu dana jib. déglu leen. fu ko foogee déglu leen sëriñ moor kee man mooy wax déglu leen. sita ah. dafa am ay mbir yu taxaw ci ginnaawam. dëgg la dafa am ay xuddaam yu mu àndal. Mm-hmm. ñëpp nag danoo jàpp ni Modou Lo dafa bàyyi li jëm ci wàllu mystique. ah waaye tey la ko gën a day naxe. naxewut de dafa am ci lum toog lu wér. ismulaay la azam bala nga koo yor da ngaa la azam. Mm-hmm. dégg nga baat boobu. dégg naa la ismulaay la azam bala nga koo yor da la azam. dafa am loo xam ne bu xësee nekk ci yow mhm. yow yaa koy versel sa bopp mhm. parce que ñu bari jàpp nañ ni mod Lo lu jëm ci wàllum mystique nit ki nag di nga toog toll ci gàllaaj foo xamante sa yaram ci boppam mooy mandi gàllaaj mhm. mod Lo danaan bëree bu bëree ba pare gàllaaj yi nga xam ne danaan wadd sax da ko daan for ben par benn kon su demee ba yooyu yëpp yam daan ràngoo yep ràngootu ko waxul ni yoratu ko wala gëmatu ko. Mhm. waaye fam daan jaar ak fi muy jaar léegi du benn. Mhm. dafa changé yoon. Siteu nan xam ni lim manqué woon bi muy ñëw ci làmb loolu la Modou Lo manqué woon muy masse ak poids. Mhm. ñoom ñaar da ngay déglu ma wax la lu leer. waaw man ñëpp Modou Lo fi ñëw. ci làmb ñoom bekkaay ñëpp dañ woon mënta nekk roi des du sori ci làmb. Siteu bi muy ñëw ci ni tolloon ñu bari doon doon wax naan fon phénomène la bu sori ci làmb waaye fan yi gis na maanaam jëmmam ñu toll ba nga xamante ni boos bi nekk ci ginnaaw ginnaawam dafa génn mhm. loolu physique la mhm. waaye dafa am loo xam ne boobu ba léegi est que gis nañ ko ci ay entraînement yu façantoo yim daan def ak sorti yim daan def bu amee combat kon combat bi jaral na ko jaral na ko nëbbatu na ci de Modou Lo nag moom li ci gën a doy waar ci mbiram moom foo ko dàkk rek da nga ko fay fekk mhm. maanaam bu daxuñu ko fomit mhm. te gënuñu koo dëkk ci réew mi mhm. kon nag lamb jooju moom maa ngi leen ciy wax lu leer nañ suñ demee ba nga xamante ni yegsi na ah. man dinaa leen jox maanaam lu leer nañ ci kuy daan exclusivité lay doon fii ci dental tv fii ci dental tv laa koy wax ak sëriñ moor waaw maa leen di wax kiy daan victoire bi te na muy daane ñun ñoo koy am waaw kon boog rendez vous incha allah dans quelques jours ñu ñëwaat fii ci euh, ci Serigne mhm. mu wax ñu kan mooy daal ci diggante Modou Lo ak Balla Gaye waaye dans tout ça ñu ngi kontaan bu baax a baax. Mhm. di am mbégte di am contentement. wax dëgg yàlla yombalal nga ñu ko. te mu nekk loo xamante ni lu jafe la. waa nga yombalal ñu ko macha allah ñu ngi kontaan bu baax baax di la ñaanal jàmm. di la ñaanal nga teg ñu loxo ndax télé bi te télé bu bees la. Mhm. di la ñaan aussi tamit nga nga nga nga dolli mu ñaan macha allah di la bàyyi nga tàggatoo ak mbokku internet Dental TV. waaw ñu ngi ziare bu baax waa. télé bi mm-hmm. di ñaan suñ borom defal leen taw tawféex tànki ñëw yeeg tànki dem yi bu fekkee njariñ rek uh-huh. moo ko waral sama boroom defal leen yiw amiin yaa rabbi te lépp luñ fi wax tamit lu maanaam jaar yoon ñu xam ni mm-hmm. uh, sama borom noonu la ko dogale uh, mm-hmm. bu fekkee dañoo juumit ñu xam ni uh, ndaw a doon wax ak jaam-jaam rek moo doon wax te yàlla rek suñu borom moo dul juum waaye liñ ci jublu mooy njariñ loo xamante du ànd ak loraange kon ñoo ngi siyaar ñëpp di leen ñaanal bu baax eh, tawfeex tay see saxaandatu daara yi mm-hmm. di ñaanal bu baax suñu jàmbaar gi Serigne Moulay Fall sama borom yokk koy leeram mm-hmm. waaye njaboot bu fi bàyyi sama boroom def ci barke mm-hmm. di siyaar bu baax soxna Anta Ñang nekk ca diwaani Italie di eh, sama soxna waaye di bu baax soxna Ayda Laay Géey suñu nekk ca diwaanu Touba tawfeex bu di siyaar bu baax suñu wajur soxna Nday Ñang ak njaboot gi ak famille bi yëpp di ñaan bu baax a baax sama borom dolli jàmm ci réew mi di mm. ñaanal baax sëriñ Fallou suñu bàyyi sama borom yàggal ko fi loolu te wér di ko ñaanal ummu islam bépp di leen ñaanal bu baax a baax sama borom dolli leen a sàmm dolli leen a aar balaa déwee na waxtu bi ngeen def uh, émission bi mm-hmm. bala moo dellu si yàlla ngeen yokk ba yëg ko amiin yaa barke alquranul karim amiin jaar waaw sëriñ Mor Kémane moom mm-hmm. amuma amuma secrétaire mm-hmm. amuma garde corps amuma bëkk nekk man je travaille seul. Mm-hmm. nit ki nag boo ma woowee man ngay jot bu bari nag buñ ma woowee jotuñu ma dañuy yaakaar ne leen li may def man maa koy defal sama bopp mhm. sama numéro ngay envoyé mhm. su fekkee ni ci wàllu pièce d'identité si sama pièce d'identité ngay envoyé mhm. lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu liggéey bi man maa ko gérer sama bopp man 78 290 41 09 nga jot Serigne Mor Kémane aajo joo ko wax lu man mu def ca lu mu mënul mu bàyyeeg yàlla mu telewul dara réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla ñëpp am jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu am mbégte contentement ah nekk ak yéen seen émission bi nga xamante ne mooy dental ak tey nag ñu am loo xamante ne defe naa ne benn si internet nag amu ko bu fi kenn ñëwaat nag di ko fi wut ndax ñu rek ñun ñoo ko fi am waa dental rek ci ñoo ko fay am macha allah sëriñ Mor Kémane ñu sees woon ko tey waxtaan ak moom ah, ñu génne fi ay mbir yu doy waar ay mbir yoo xamante ni képp koo xamante ni rek bëgg nga xam kii lan lay liggéey exactement wàllum rab wàllum ñaan lépp loo xamante ni rek ah jàqare nit la boo ñëwee ci moom incha allah dina la ko fajal numéro am nag mi ngi 41 09 mu nekk li nga xamante bis allah di nga ko jot mu nit ku nit ku ëmbal di ziar bu baax sama yaay buy jaaga maa leen bisa ba buk leen sama yaay ah Abi Diop nekk depuis France ak Oumou Saliou maa leen nuyu baax a di Serigne sama yaay xool fii laa la def di ziar sama waa kër di nuyu ñëpp seen mbokk seen xaaj Rama la Dental TV ak Dental Actu ñu leen jox dig daje prochainement allah ak ci beneen numéro tak tak rang rang